waa nouvelle bi de bi ñu ko jotee muy li nga xam ne moom la nguur gi tëral ndax aar euh, littoral bi euh, vraiment nouvelle nouvelle bi bi ñu ko jotee daf nu neex lool ndax te lu toll fukki at ba fukki at ak ngay xeex euh, yore association environnementale pour di xeex li nga xam ne moom mooy alam beeg environnement bi nii ñu ko nara a saax-saaxee tey ji boo ñëwee si kaw duñu lacrose yi nga gis tey bëgg morcelé ay quinze ou dix ay ay bâtiment fu ne di fa jóge loolu dafay agressé li nga xam ne moom mooy environnement bi ak bande bi nag euh, bu fekkee ni tey jii euh, état bu Sénégal jël na décision pour dakkal loolu lépp ah, mu nekk ay décision ferme ay décision yoo xamante ni dina ànd ay suivi ba lépp lu fay waaye mën def loo xamante àndul ak alam bi ak environnement bi ñu daal koy daggal ci sens bi parce que nous avons beaucoup beaucoup souffert beaucoup travaillé avec la DSCOS mais malheureusement teewul bâtiment yi poussé na sur les rives de la Crosse te loolu lépp tey jii dafa yàq environnement ji dafa dafa soppeeku.